dañu am tey ñëw fii pour euh, def lancement programme buñ tuddee paysan bi nga xam ne ci wàllum mbéyum ndër lay yëngatu fii ci vallée zone des Niayes euh, projet bi nag euh, gëm nañ ni liñ ci xaar war nañ ko mën a am maanaam gën a dooleel mbéy mi gën ko yaatal mais surtout joxe ay ndaw yu bari ci zone fu muy intervenir dimbale gox yi ak euh, goxaat yëpp pour ñu mun a gis seen bopp ci mbay mi xam ngeen ni président de la république euh, amaat na programme boo xam ne euh, programme bi mu jégleel ndaw yi pour ñu mun a am xëy ñun su agriculture ci wàllu agriculture am nañ ci ay programme yu bëri mun nañ tuddee Agri Jeunes Proval ANIDA te gëm nañ ni paysan tamit dina ci bokk te war na mun a en tout cas euh, fexe ba lu ñu xaar ci agriculture pour d'abord jox xëy mais surtout <laughs> pour maanaam dëgëral suñu économie maanaam euh, dimbale ko mu bañ a suug parce que loolu moo xew ren euh, maan li ñu am ci agriculture moo tax yàlla def na ba suñu économie bi amuñu lu ñu tuddee récession maanaam daan donc ñu ngi ñaax ñëpp ñoom Hadj Jong ak euh, ñi mu àndal yëpp ak ñi béy yëpp ñoo xam ne yaakaar nañ leen euh, parce que maanaam ci mbas mi gis nañ ne mbay moo ñu war a en tout cas euh, permetre ñu mun a résister moo ñu war a permettre ñu génne ci bu ñu yàlla defee ñu génn ci mbas mi suñu économie war mun a teguwaat ci yoon émergence comme ni ko président de la république santaane donc ñu ngi en tout cas gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant suñu partenaire Italie nga xam ne. Euh, vraiment gis nañ jéego yi ñuy def ci euh, ci ci ministère de l'agriculture am na ñu PAPSEN am nañu paysan euh, ñu ngi aussi ci ANIDA parce que ànd nañu yàggul Taïf pour inaugurer benn ferme ñu ngi leen di gërëm di ñaan ñëpp ñu jàpp ci pour que Sénégal yàlla def ba bu ñu génnee ci mbas mi plan Sénégal émergent bi nga xam ne moom la Macky Sall teg ñu teguwaat ci yoon boobu te gëm naa ni mun na mbay en tout cas war nañ ci mën a bu baax a baax maa ngi leen di gërëm di leen